jamono ji nga xamante ni si lañ nekk nii dëkk boobu di Guinée nekk si ay jafe-jafe yoo xamante ni moom moo ñeel wàllu njiitum réew ma nga xamante ni lii di l'armée bi dañ ko fa daal di jëlee loolu nag nekk loo xamante ni communauté guinéenne bi nekk fii Sénégal nekk lu ñu rafetlu loolu ndax koox di Alpha Condé dañoo jàpp ne moom moo daal di yàq dëkk boobu depuis élection bi mu sàcc tamit élection bi moom gañewul dara mu dem tamit jaay doole sàcc élection bi dàq Guinée yëpp ñi mënatoo wax même boo defee émission sax ñu ñëw toj la si kaso bi mënatoo amatul benn wax ndax dictature totale la bëggoon def Guinée. te moom defarul suñu dëkk day toroxal xale ji xale yi xale yi rek Guinée day toroxal xale yi Guinée rek yaa ngi dégg suñu dëkk ga instant nii ku ko defar bu baax moo loolu la ñu soxla instant nii. bu demee ba nga xamante ne da nga sonal ñëpp sosal ñëpp mel ni da nga xoj nit ñi xoolal depuis daaw ba léegi wala daaw géej dafa tëj frontière yi kenn mënul dem kenn mënul ñëw euh, danga dem booy dem fii Guinée moto ngay yéeg. nga dem ñëw faj say soxla gars yi xam nañ ñu ngi dem gaay yi xam nañ ñu ngi ñëw euh, moom daal ñoo fatu quoi. ñu ci bëri ñi nga xamante ni fekk nañ leen ci marché bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci Castor ñoom wax nañ seen xalaat ci li nga xamante ni moom moo am foofu ca Guinée muy loolu di coup bi. ñun tudd ñu ay coup d'état lii moom parce que militaires yi yàgg nañu manifester am na sama moro yu baree baree dañu deewa si lii depuis Alpha Condé ñëw bugg a changer bi pour maintenir au pouvoir. waaw moom de xanaa kontaan rek kontaan loolu rek waaw comme que instant yii Alpha Condé moom kooku moom dictateur la suñ ko jàppee damaa kontaan. ah euh, lenn mu xam instant instant sama gars yi ñëpp kontaan instant man mii di wax yow sax ma kontaan dañuy ñaan yàlla rek président bu bu kii bu baax ku mun a yor réew mi. ginnaaw bi nga xamante ni wax nañ seen xalaat waaye tamit ñu yëkkati ay kàddu jëmle ko ci ki nga xamante ni yaakaar nañ ne bu ñu ko tegee foofu ci bopp réew ma dina mën a yëkkati Guinée ngir mu gën a développé. waaw waaw mun na nekk instant ni que moom eh, suñu joxee Cellou Dalein mun na ko defar waaw Cellou Dalein am naa si yaakaar moom. ko moom moom su toogee que mu ne amul ethnie du du am ay raciste yaa ngi day Guinée yëpp booloo lépp lépp nekk benn. moom kay yaakaar naa moom su toogee kay di Guinée yëpp day rek day tout tranquille man éssan moom du ma la wax Cellou wala Sidia wala keneen man moom Alpha na pousse rek keneen ñëw ku baax baax na voilà élection bu jotee nga ñëw tànn sa kii eh, ku ngay voté nga voté ko jeex na man waxuma il faut Cellou rek ah man pare nañ ko bu bu kaay kiiwee samp yi pare nañ ci waaw di ñu sant yàlla parce que am nañu benn départ amoon am nañ benn dap départ ni fu mu nekkee nii dañuy ñaan yàlla ñuy jëlaat nguur bi nii esaay ni ñu organiser élection transparent libre ñu def transition boo xamante ni yàggul ndax Guinée tamit mun a jëlaat beneen ligne bi quoi. Guinée jamono ji mi ngi nekk ci loxo yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy l'armée bi ginnaaw bu ñu yëkkatee kii di Alpha Condé nga xamante ni moom moo nekkoon ci bopp réew ma ginnaaw bu mu amee li nga xamante ni mooy troisième mandat. mun na nekk mu nekk si jàmm loolu la ñu bëgg dañoo ñaan waa militaire yi tamit ñu nekk seen yoon comment dire xaw ma lu ñu koy waxee sax nekk si dëgg quoi yaa ngi dégg loolu lañu ñu bëgg si ñu ku mun a defar dëkk bi rek instant ni loolu la ñu soxla quoi. ah am nañu yaakaar parce que militaire bi depuis mu jëlaati nguur bi eh, bàyyi nañu gars yi ni nekkoon si prison yu bëree bëree bàyyi na leen léegi même kii ni Cellou Dalein dañu jàppoon passeport am jàpp ñi nekkoon si ginnaawam moom moom delloo na leen même bi dañ ko tojoon. kenn mënutul wax léegi mii am nañu yaakaar bu baax binteer bi daal mun naa mun naa kii eh, mun naa def transition bu baax ñu organiser élection transparent libre ku gañe jël. jamono ji nag ñi nga xamante ni ñoo nekk Guinée nekk ay nationalité yoo xamante ni fii la ñuy liggéey ci biir Sénégal ñoom ñu ngi xaarandi loo xamante ni dinañ ko def ba dëkk boobu mën na nekk ci jàmm ba ñoom sax ñuy xalaat daal di delluwaat ci boobu dëkk nga xamante ni mooy Guinée dem bokk ci dëkk yi nga xamante ni ñoo ëpp ressource ci biir Afrique.